بسم الإله الأدار يا الله سفي بقاء به لي فيك يا الله بسم الإله الأدار يا الله سفي البقاء به لي فيك يا الله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 alhamdulilahi rabbil alamin la hawla wala quwata illa billahi aliyil azim rabbi israh li sadri wa yassir li amri wa ahlul uqdatan min lisani yafqahu qawli barke borom Tuuba asalaamualeykum wa rahmatullahi taala wa barakatuhu mbokki téléspectateurs yi eh, Lamp Fall TV noo ngi amaat mbégte jàkkaarloo waat ak yéen ci jataay bi nga xam ne moo di seen émission bi ñu duppee ëttu murit ñu di ko amal alxemes bu jot bu vingt heures fan fanweeri minit ñu jàkkaarloo ci wàllu machine bi ak alxaaji Fallou Sylla seen mbokkum taalibe Fallou gala Sylla jàkkaarloo ak yéen ci micro bi ñu àndandoo at eh, téléspectateur yëpp di siyaare ak a ñaanal Serigne Touba Cheikh Mouhamadul Mountakha borom mbég mi waaye borom yitte ji di ñaan sunu borom mu gën ko fee yàggal lool te gën a dolli ak wéram kattanal ko ba naal yi mu naalal lislaam yëpp mu àggale ko te ñu ànd kook moom te am ci ngërëmul sëriñ bi di siyaare mboolem njabootuk sëriñ Touba gépp di siyaare mboolem seexi sëriñ Touba yëpp di amaan mbégte ci weeru tedd wi ñu nekk di weeru koor di àndaat ak yéen seen émission bii di ëttu murit tey jii nag ñu tàbbi ci benn ëtt boo xam ne kenn du nattable ne ëttu murit la xanaa kay fan yi jëlee garaatub murit saadix waaye ëtt ba ëttu murit la muy ban ëtt mu di ëttub euh, daayira Hizbut Tarqiyyah ëtt boobu nga xamante ni bii jàmbaari lislaam ja di sëriñ Touba Cheikh Abdoul Ahad Mbacké nañ ko yàlla fayal la ko yàlla xaasale woon mu jamononte ak ñoom ñoom ñëpp ñu de ay tuut tànk génn ci daara ju mag jooju nga xamante ni bii lu ëpp ci eh, liggéeyub saytaane foofa la ko daan liggéeyee ngir jàpp ne ndaw lu fa génn rek élément am nga war a doon ndakate Serigne Touba jiitu na ko foofa tabbi ci biir xol yi ñooñee nga xamante ni bii ñoo di eh, njaboot ga fa nekkoon ba ña fa génn ñëpp koo ci ne wut ne ban diplôme nga am da yaakaar ne ci daaray tër bii la génne wala ci daaray alquran la génne moo tax sëriñ tubaa di wax naan xulubuhum laysa tamilu abada ila siwaaka min huna ila xada tey jii nag ñu dalal ci eh, sëriñ Lamine Diouf eh, sëriñ Lamine di kenn ci nun eh, waaye di kenn it ci njabootu sëriñ tubaa gi ba mu xam mee ci fukki atam ak juróom ñett jàpp ñaar fukki at ba bisub tey laxasaayam ngi mus a tekk ci liggéeyal sëriñ Tuubaa amut yenn yitte ju weesu di xëy ci sëriñ tubaa di gont ci sëriñ Tuubaa Euh, tey jii nag ñu dalal ko fii ci euh, kër sëriñ Serigne Touba Khadim Rasoul ci barab bii nga xam ne fi la ñuy euh, gunge weer wi ci njàngum xaside mi nga xam ne ci teewaayu Serigne Touba Cheikh Mouhamadul Mountakha lay amee ak njabootu Serigne Touba gépp ñu fas yéene ànd ak moom ci jataay boobu di siyaare bu baax a baax Serigne Youssou Diop mi nga xam ne tey jii mooy jëwriñu liggéey bi ànd ko ak mbooleem membre Hizbut Tarqiyyah bu nekk ci biir réew mi wala bu nekk bitim réew. ñoom ñëpp di leen ñaanal yàlla mu may leen kàttan ak wér ak ndam ci liggéey bi ñu liggéeyal Serigne Touba waaye dool dolli tawfeex nag ak yërmande ak xéewal ca jàmbaar ju mag joojee nga xamante ni bii eh, ba mu engagé delluwaatut ginnaaw mu di Serigne aatu Diagne Serigne Abdou Lahad noonu na woon engage mooy loo xam ne boo duggee dootoo ci génn mën nañu wax ne kon Serigne aatu dafa engagé woon ci liggéeyub Serigne tubaab yi ba nee mu tëdd tey jii ca penku ba eh, yàlla na ko yàlla wana wanale ak Cheikhul Khadim wanale ko ak Cheikh Abdou Lahad Mbacké te yàggal fi ak njabootam gépp kon eh, Baye Lamine maa ngi lay nuyu. waaleykum salaam wa rahmatullahi taala wa barakaatuhu sëñ Fallou ñu lay nuyu bu baax di sant. di am mbégte bokk yow jataay bi di la ndokkeel ci weeru tedd wi di jiital ci suñuy kàddu rek kàddu yu nuyu ak ziar jëme ko ci ak Cheikh Mouhamadou Mountakha ibnu Cheikh Mouhamadoul Bachir xalif général des Mourides di ñaan mu yàgg fi lool te ànd ak wér ba mboolem li mu yéene ci liggéeyu Serigne Touba mu matale ko te ñu ànd ko ak moom. di leen nuyu itam ci kàddu ak turu suñu jëwriñ sëriñ Youssou Diop mi nga xam ne euh, moo amoon yéene teew waaye xat-xat yi ak liggéeyu koor gi ak war-war yi tax mu yabal ñu ñëw teewal ko ngir tontu kem suñu kàttan rek ci laaj yi nga xam ne incha allah dina fi jib di la nuyu na bu baax suñu fàllu te yaakaar naa Hizbut Tarqiyyah moom euh, buñ ci doon waxtaanee buñ la jàppoon jox la ci war nga ci mën a mën a mën a waxtaan kon ñu lay ndokkeel bu baax ci ci jataay bi di ñaan suñu borom yéen yiñ ci am yëpp mu mottal ñu ko ci bar sëñ Tuubaa Euh, xam naa sama laaj bu njëkk rek moo di euh, Hizbut Tarqiyyah seen seen seen seen seen idole mooy Cheikh Abdoul Ahad mooy seen royukaay waaye dafa mel ne <clears throat> dafa am yoon woo xam ne daf leen cee jaarale woon koo xam ne Hizbut Tarqiyyah ci njàngum xasida rek nga ko mas a xam ak nekk ci service yi xalif général des mourides waxtu ne ci xalif euh, service xalif général des mourides waaye wuutu mbooleem kuréel yi daan jàngal Serigne Touba ci njàngum xasida mu mel ne nag njàngum xasida moomu nag eh, dañoo dem ba benn jamono ci li ñuy wax ne Serigne tubaa nee na noppi naa ci sama yoon wi ba mel ne njaago ba doon ràbb ay sërëm nam ca noppee lu ma soxla rek bu ma tàllalee soroo day fekk loolu na cee fii jamono toll nga xamante ni bi Cheikh Mahamadul Muntaxa ku ko xam xam ko ak bëgg xam-xamam xam ko ak bëgg ay xasidaam xam ko ak jeex takk ci Serigne Touba nga xamante ne bii loolu daf ko leeral moom ne ba ma xamee ne wut ba wut jeex wut ci gën dama ne dann yoonu yàlla wi di ko wut doliwu ma ci dara waaye ba ma xamee xam nag ba xam jeex xam Serigne Touba ci gën ba ma xamee Serigne Touba ma cee xam dara ni mu mel ci xasida nga xam ne kenn du ko gis ci yoru jukki ba wala muy ree dafa mel ne daa dem ba mu yàgg na moo leen kaay nag li ngeen daan jàng nag dama bëgg ngeen ñëw fii ci wetu borom nag di ko ànd ak moom ci weer wi nga xamante ni bi masaa ñëw ku nekk da wax ne la duutu am genn jot ba di ko taalifal ay xasida boppam moo leen kaay nag di ko wéttali ci xasida yi loolu bi mu agsee ci yéen eh, nu mu def ci yéen ak fu nu ngeen toll ci seen i waajtaay ak bëgg-bëgg googu nga xam ne fekk sëñ Muntaxa ak bëgg ma waaye fekk na leen ci biir ok jëf suñ Fallou ñu lay sant bu baax a baax a baax a baax ni nga ko waxee rek Cheikh Mamadou Muntaxa moom ku ko tudd xam ne itteem moom mooy sëñ Tuubaa ba tax na lépp loo xam ne gis nañ ko mu ci yëngu lu yeesal mbirum sëñ Tuubaa rek la. dëgg ak fàttali taxawaay yu am solo yooyu. kon mënees naa wax ne taxawaayam bii tey ci dundal weer wi ak gunge ko ci koor gi. delloo na ko ca na ko Serigne Touba daan defee. ndax way juróom bu baaxoo Cheikh Mouhamadoul Bachir. boo demee ci téeréem ba di mi minanul baaxil xadim leeral na ci bu koor musaani ñëw ni ko Seexul Xadim daan defee.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 lépp mel nii lu dal la ndax gisatuñ ko mu jóge ci beneen barab di dem foofee jëmmal na fa lislaam ba bàyyiwul benn fànn koor nag bokk ci yi nga xamante ni daf ko yóbbaale ci biir loolu euh, sëriñ Bassirou dafa wax ci téere ba minul bàyyil xadim ne bu weeru koor mësaani ñëw mbégte mi ngi ko daan gis mu am ñu bari bu ñu mësaan am aajo dañuy dàkk weer woowu moo ko weeru gàmmu ngir takk ci ne te juñ ko wax mu saafaral ni ko ngir mbégte mi muy am Euh, noonu it la daan jàngaloo alxuraan ci njàng mu kawe limu ñam ko daan jàngaloo da ko daan yokk ñamu daan tarbiyee sax sëñ Basiru nee na lam leen daan sëf ci liggéey day ëpp ndax da daan wax ne dañuy wattandiku loxoy neen ndax iblis di seytaane mooy njiitul way yàccaarali ngir bëgg maanaam ñu yëngu mm-hmm. loolu nag daan ci boole nag daan génnal boppam mm-hmm. di toog fa barab ya di teewlu xaside yi ñu di ko ko jàngal mm-hmm. loolu nag bi yàlla suñu borom doxee muy dox ba agsi ci teewaayu du mun Mountakha mu mel ni jataay yooyu bëgg na koo delloosi jëfin woowee bëgg na mu yeesaat na ko sëriñtuwaa daan defee it bëgg na koo jëmmal ba ku ko daan jàng ci ay téere wala daan ko dégg nga teg sa bët ci xam ne ni la daan demee loolu it daan ànd ak bernde yi ndax Serigne Bassirou wax na ni ay taabal yu mag lañ daan teg di ci def lépp lu ñuy ittewoo di ko jariñoo te nee menn mbokk du ko tere ab jàmbur benn dëkk du ko tere ab doxandéem mm-hmm. nee na matt mi nga xam ne ci la ñuy liggéey ak di ci defar warga kafeeg yu ni mel nee ña koy xamb seen matu du giim lu dul buñ ne jàpp jot na muy kon lu am solo lool nag suñu boroom nag dogal bi ko Cheikh Modou Mountakha di yeesal ñun daara Hizbut Tarqiyyah ñu am ci tawféexu sëñ Tuubaa rek lañ ko mën a jàppee mm-hmm. ci mu xalaat jëm ci ñun mm-hmm. ci wàllu njàng ma ak wàllu nose ba ak wàllu defin wi joxe waxtu yi nga xamante ni ci lay génn ak waxtu yi nga xamante ni ci lay teewlu njàng mi ak ni muy dikkee ci kër gi ak ni muy bëggee ñu defee ko ndogu yi ak lépp bi loolu amee nag euh, suñu xel dina dem ci suñu jëwriñ ju baax ji mu di saarix di sëriñ Atou mm-hmm. euh, yëggale yitte ji foo xam ne euh, amatul jàmm dëgg du guddi du bëccëg mm-hmm. sosal ko ay yëf yoo xam ne bu dee tapis ñuy jàngee yu bees lay doon yeesalaat téere yi ba mu gën a dëppook moom yeesalaat banderole yi nga xamante ni moom la ñuy taaralee kër gi nga xam ne yamatul rek ci barab bi ñuy jàngee te sëñ bi dafi toog ak bokkam yu baax yi waaye kër gi ak li ko wër takk ci rajo yi indi sonorisation bi euh, jàppandi ak tawféex am itam télévision bii di Al am ñu di ko def en direct muy jaar ci internet ak yeneen réseaux yi bu fu waay mën na ne ci àddina bi mhm. su waxtu wa jotee mhm. nga mel ni yaa ngi teew ci Touba mhm. loolu nag euh, mu indi organisation boo xam ne ab kuréel boo xam ne seen itte mooy loolu ngir ñi nga xamante ne ñooy defar bagage yi ngay gis muy wàllu menuiserie ak lu ni mel ab kuréel lañ ñi war a takk lamp yi ak ñi ko war a defar ak ñi ci war a def rafetal yi ñooñu itam ab kuréel lañu mm-hmm. ñi nga xam ni itam ñoo yor wàllu sonorisation bi ngir kër gi foo toog di mën a dégg kuréel lañu lu bokkal ko loolu gis nañ ne kër gi saal bi ñëpp duñ fi mën a ne waaye ñu fexe bu biti ñu def ci ay baas mm-hmm. yoo xam ne dañ koy seral bu mu sedd fu ci nekk itam ñu teg fa écran boo xam ne ku nekkul ci biir it boo nekkee ci biti di mën a jàkkaarloo li ne ci biir mm-hmm. mën a mën mën di seen sëñ bi ci écran bi ak kuréel bi nga xamante ni maanaam ñooy jàng mu ñi nga xam ne ñoo yor wàllu ndogu yi mm-hmm. ci wàllu euh, yi ñuy jëfandikoo moo xam yu tàng la wala yu sedd mm-hmm. am ñoo xamante ni itam seen liggéey ci loolu la jëm mm-hmm. loolu lépp nag ànd ak kuréel boo xam ne ci wàllu sécurité ndax dugg bi ak génn bi ñu lëkkaloo ci ak ñi nga xamante ni itam takk deri lañu loole lépp di wéy euh, nga xam ne saa bu ñu ko dee def daan nañu jàpp ndaje moo xam ne kilifa yi dañ ciy teew moo xam sous-préfet ak ñu yor wàllu wér yaram mhm. ñu yor wàllu service d'hygiène mhm. la nga xam ne moo ciy seen wàll mhm. ñoom it ñu féetewoo ba fi mu ne nii bis bu nekk dina am sapeur pompier dina am waa croix rouge dina am ñoo xam ne ci diggante district sanitaire bi ak yeneen këru liggéeyukaay yi nga xam ne ci wàllu wér yaram la ñuy liggéey am nañ fi permanance bu fi bu fi bu fi nekk ci docteur boo xam ne ku am loo yëg te mu laaj jàmp ñu taxaw la bu mën koo taxaw ak ambulance boo xamante ne moo fi nekk nga gis ne kon Euh, noonee ko suñu aatu defee woon ngir xam ne wootee la boo xam ne ñëpp dañ ci wuy si noonu itam euh, bi ñu ñëwee ren xam nga ne daaw ndax tolluwaay jamono yi mhm. amul mhm. ren itam bi ñu dikkee noonu la ko suñu yuusu yeesalaate mhm. yeesalaate nga xam ne yaakaar naa ku ñëwoon ci barab bi 2019 ñëw fi ren dina bari loo fi gisoon loo xam ne di nga gis ne dafa beesaat tey ci lu ñu sos ci wàllu euh, jumtuwaay yu yees ak itam nag ak jëm kanamu sëñ Touba. Mhm. di ci feeñ saa ne. macha li ci des nag jëm ci wàllu kuréel bi. Mhm. kuréelu xaside yi xam nga isbu tarxee tey mhm. daara ju mu am rek am na kuréelu xaside. moo xam yu ndaw ndaw ñi la. wala ñi nga xam ne ay waxambaane lañ toll ci seen digg doole ak ñi leen gën a mag tuuti. bi ñetti kuréel lay doon. kon waaw ñetti xeeti kuréel lay doon ci ay. ci daara ju ne waaw ci daara ju ne. maanaam dina ko ëpp sax di nga ñëw ci daara joo xam ne. bu dee mag ñi rek di nga ci am ñetti kuréel. yu bokkal ak maanaam kuréelu waxambaane yi bokkal ak kuréelu tuutànk yi loolu nag bi mu jubsee ñu seet direction bu conservatoire bu isbu tarixiya ñu daje daanaka mën naa ne euh, rajab fekk na ñuy takk programme bi weeru saxbaan wépp amu ci benn ayu bis boo xamante ni du nit jóge na ndakaaru kii jóge Thiès kii jóge Kaolack ñu daje ci direction général ñu wax ni ñu ko bëggee ginnaaw bi sëñ bi joxee ndigal li ak kuréel yi ci biir loolu nag li kuréel yi bari bari nga xam ni jege na fanweer mhm. dañoo seet lu tolloog juróom-ñetti kuréel yoo xamante ni moom xam nañ ne bu doon course moom ñooy nekk ci bopp mhm. ñu jël leen mhm. ñu féetewoo moom njàng mi ci biir koor gi di ko ay ayloo nag bis bu ne ba koor gi ñëw kuréel bi ne xam na li mu war a jàng xam na itam yan daaj la war a jàng xam na itam yan xasida la war a jàng loolu mooy kuréel yi jàng fii ci biir ci teewaay sëñ bi lu bokkul ak kuréel yooyu nag diirub li mu weeri weer wi ni mu toll ci ci ci fan bis bu nekk am na kuréel boo xam ne lu bokkul ak kuréel bii di jàng ci biir mooy gatandu sëñ bi nga xam ne sëñ bi buy dugg si ab kuréel xasida moo koy gatandu bu bokkut ak bu bokkul ak bi ko gatandu woon démb ba mu dem ba àgg fi nga xamante ne mooy ab dalam ñoom ñu dal bu cinq jotee ñu jóg ñoom it tàmbali koo gatandu ba mu génn ci ab dalam ba dugg ci biir barab bi ñuy jàngi xaside yi mhm. ñoom it ñu dal ñoom it ñu dal bu ñu jàngee ba ñaan mhm. ñoo koy gungewaat ba mu delloo ci Abdallah am na kuréel boo xam ne loolu rek la ñuy liggéey ñoom mhm. ñoo xamante ne bokkuñu nag ak kuréel bi nga xam ne ñoom ñooy toog nii di jàngal sëñ bi te ñëpp ñëpp ñëpp di ko teewee kon day mel nii noonu noonu noonu noonu la ñu ko defee ne ko suñ yuusi doon di waxee rek ne moom euh, li mu fas yéene mooy gis na ni sëñ xàll na lépp te it sëñ Tuubaa defal ko ci tawféex ndax ñoo ko àndoon mm-hmm. nga xam ne amu ci kumpa ci lenn waaye nag waxtu wu nekk mm-hmm. mi ngi wane ne sëñ Tuubaa amul tànki ginnaaw tànki kanam rek la am mm-hmm. te loolu yaakaar naa feeñ na ci njàng mi feeñ na ci daaj yi am na ci yoo xam ne ren lañ ko mës a jàng ren lañ ko jëkk a jàng ci koor gi lañ ko jëkk a jàng allahu akbar yoo xamante ne waajtaay wi rek moo taxoon kuréel yi itam gis nañ ne ah, sélection bi gën dina am solo kuréel yi gàttandu itam dañuy jóge fu sori kuréel su ma la joxee misaal ci bisub démb mm-hmm. kuréel bi leen gàttandu sëñ bi tëngéej lañ jógee tëngéej lañ jóge tëngéej lañ jógee mm-hmm. nga xam ne ñoom li leen indi mm-hmm. mooy gàttandu sëñ bi buy dugg gàttandu ko buy dugg ci keesam gàttandu ko buy ñëw ci kuréel xaside yi bu jàngee bay deel ñu gunge ko bu subaa beneen jóge Kaolack bu subaa beneen jóge Louga bu subaa beneen jóge Mbuur ngir kuréel yi mate na ko te kenn ku nekk itam bëgg na ciy feeñal yéeneem waaye fii moom ñi nga xam ne ñoo ciy jàll moom ñu xam ne ñi isub moom gën a gën gën a matale ay sart ci ay kuréel mm. ñoom la ñu sélectionné ngir ñu jàng ci. macha allah eh, jërëjëf Baye mm. day mel ne bu dee ci wa fànnu njàng mi mm. li nga ci indi leer na naññi waaye eh, faw ñu desaat foofu tuuti ndax nii ngeen waajalee njàngam xasida yi nga xamante ni bii mën nañoo am juróom-ñetti kuréel yoo xamante ni bii ñooy ay ñooy ay ay lonte mm-hmm. ci biir eh, ñaar fukki fan yeeg juróom-ñeent mm-hmm. fanweeri kuréel yi nga xam ne wala ñaar fukki kuréel ak juróom-ñeent yi nga xam ne bis bu set ñooy gàttandu sëriñ bi mm-hmm. ni ko sëriñ Tuubaa daan defe nga xam ne daan gàttandu weer wi mm-hmm. gunge ko buy dem day mel ne yéen ne noonu ngeen di gàttandoo sëriñ bi di ko mm-hmm. gunge saa delluwaat loolu moom bis bu set lay doon kon day mel ne wàcctaayu njàng mi ak li mu laaj ay jumtukaay mooy jumtukaay yu xay yu dëppook jamono yoo xam ne danañ xam ne man na man naa mandargaal njaaree mi démb ja mm-hmm. mën naa mandargaal njaaree mi démb ja mm-hmm. ndax loo def ci xeeti xayte rek mu jëm ci wàllu xasida yi xamal ne da ngay bi waaye da bëggoo ko kon yaakaar naa ne loolu leer na mm-hmm. mu mel mu des nag kon lu jëm ci wàllu bernde ndax tudd nga bernde te ku xam koor xam sëñ Tuubaa xam bernde day mel ni ci wàllu bernde it eh, fekk na Hizbut Tarqiyyah tàggatu ci waaye rawatina ci weeru koor wi waaw dëgg la ndax eh, bernde yi moom mën nañ ne eh, bànqaas la bu ci liggéey bi boo xam ne euh, am nañu tawféex tam euh, di ko séq ku fi mës a nekkal sëñ Tuubaa euh, bis bu nekk waaye bu koor gi ñëwee nag day soppiku soppiku gi mooy bernde yi day dëppoo weer bi mukaraman bi xira taaxaate wa sari <laughs> loolu borom wax su <laughs> ko defee loolu uh-huh. dañuy feeñ ndax waxtu yi may wax ak yow waañ wa itam pàcc la boo xamante ne dafa ñëwul fii uh-huh. waaye ni ñu nosee fii ni lañ ko nosee uh-huh. nga xam ne soxna yi ci nekk waxtu waxtu woo dem da nga leen fekk ñu ne necc ñoom itam liggéey nañ ko ay kuréel yoo xamante ni jigéen ju ci bokk xam nga bis bi ngay togg xam nga sax lan nga war a togg bis bu nekk xam nga li nga war a togg mhm. ndax ñoom ay section lañ ko def ñii ñu ngi ci am xorom yi mhm. ñii ñu ngi ci am saf suukar yi mhm. ñii ñu ca waañ wa saafe di wëlbati ki cumwaar mhm. ñi ñu ngi ci fuur ya ñi ñu ngi ci yeneen nga xam ne kon xeet yu bari la mhm. yoo xam ne bu ñu ko dajalee mu doon xeeti bernde yoo xamante ni yu wuute lay doon loolu itam dafa am kuréel yoo xam ne ñoo fa ne mhm. nga xam ne ñoom it bu weer wii jub si la ñuy def ñoom it ndaje yu toll nii yi waa kuréel bi def def nañ ko ñoom dëgg la ngir mën a xam eh, waajtaay wi mën a xam xayma yi mën a mën a yeesalaat seen i waañ eh, techniciens yi ko war a réviser réviser ko xool fu gaz bu toll xool fu fuur ya toll génnee nag calendrier bi bis bu ne ña koy taxaw ak waxtu wu ne ak menu ba nga xam ne moom lañ koy booleel. loolu nag kuréel yi nga xam ne ñoo koy togg daanaka su ma yeboon ne lu topp ci tisbaar dina fekk ñoom seen lépp noppi. ñu war ñu war koo indi fii nag ci kër gi. war a ànd ak nag ñi nga xam ne mhm. ñoom itam am na yu ñuy defar yoo xam ne fii lañ koy defaree. Mhm. yu mel ni café yu mel ni meew yu mel ni yu sedd yi nga xamante ni mhm. maanaam moom lay àndal su ko defee xam nga ni eh, ni mbir yi demee. ak euh, tolluwaay bi tax na xëy na dajaloo gi du am waaye nag ñoom am nañu ay ay ay ay defukaay yu murite yoo xam ne mm-hmm. moom ndongo lu ñu ko bokkal boo demee ba tàqariñu ko moom di nga xam ne dana mat dana dana mat ndogu <laughs> su ko defee waaw dana mat ndogu fànn yëpp itam nekk ci lu bokkul nag xëy na ak ñi nga xam ne ay gani sëñ bi lañu euh, mu teralee leen woo leen fa moom ak la nga xamante ni moo ci aju ci seen wàll ci ci ay berne moom daal xëy na dajaloo bi ci na mu daan demee ci mbaar ma mm-hmm. moo ci ne waaye lañ doon waajal moom yéesu lañ doon waajal daaw macha allah jërëjëf euh, Cheikh Mamadou Lamine jërëjëf mbokki euh, téléspectateurs yi ñu topp ci seen télévision Lamfal TV ba tey ñu nekk fii ci kër Serigne Touba gi rek waaye day mel ne wàllu njàng mi moom dégg nañ ko organisation bi dégg nañ ko wàllu waañ wa dégg nañ ko mm-hmm. dafay mel ne xasida yi suñ borom da leen cee defal ab cir ndax dafa mel ne kuréelu bu Tarqiyyah ni ma ko waxee woon ci njëlbeen xasida lañ leen xamee ak ci service yi ki fi nekkal sëñ Tuubaa waaye daa mel ne sëñ Muntaxa mi dafa am dañ ko fee bàyyi woon ngir mu am lu bari lu mu leeral ci daara Hizbut Tarqiyyah seenu ànd ak sëñ Muntaxa waaw sëñ Fallu euh, li ma ciy dolli rek balaa ma ñëw ci loolu sax euh, sëñ Fallu mii laa sigi xool sama xel dem ci mhm. mooy wàllu télévision yi nga xam ne yëpp dañoo mhm. nekk ci Sénégal ba ci nekk ci bitim réew mhm. ak mboolem site yi nga xam ne ay site internet lañu mm-hmm. ak ñi nga xam ne ay rajo lañu ñu yoon mm-hmm. am nañu ci wàllu euh, jumtuwaayu yees yi lëkkaloo yu ñu def yoo xamante ni ku ci bëgg njàng mi waxtu wu tàmbalee mm-hmm. nga am ko lépp en direct dara du la ci raw di nga ko am te du jar ngay jóge fa nga ne allahu akbar kon loolu moom yàlla dogal ni ñu koy gisee ci almouride ñu koy def en direct <laughs> noonu la bari ay sites yoo xam ne noonu la ñu koy def en direct loolu itam suñu boroom dimbali nañu si ba tax na yaatu gi <laughs> euh, gis nañ ne euh, fa mu fa mu fa mu newoon daaw <laughs> weesu na ko euh, suñu diggante ak Cheikh mun Mountakha nag moom dama ci jaar ci kàddu yi nga xam ne moo ko waxal boppam ci ay seere da daan wax ne ci njëlbeen de bi bi ngeen tàmbalee dama daan wax ni gëmewuma leen. oh gëmewuma ko. leen. Mhm. nen loolaa daan wax. Mhm. waaye nee na nag ma dem suñu borom di ma dimbali ma dem ba loolee nga xam ne gëmewuma ko woon nee na ma am ci nag yaqin. sama xel dal ci na téex mhm. ziar bi ñu ko mujjee ziare. te fekk boobu na boobu suñu aadoo ngi fi. wax na kàddu yoo xamante ne dafa ni jataay bii de. bii ma toog ak yéen. menn xel mm-hmm. mu mës a xalaat ne bis dina ñëw mm-hmm. ma toog ak yéen ci jataay bii mm-hmm. nee na amul kon nag loolu du yéen du man sëriñ bi la dëgg la kon moom foofu rek la ko du yéen du man sëriñ Tuubaa rek waaw moom naka jekk loolu loolu la jàpp suñu suñu borom nag dogal euh, ñu ñu ñu ñu séqoon lu bari ba moom daan wax ne xam leen ne mbooloo mi dama cee bokk. dëgg la mandargal na ndax ndax ndax ndax ànd naa fa benn ziar boo xam ne. Euh, soxna yi dañ doon dañ ko doon ziare ci poroxaan euh, mu ne leen na ngeen xam ne ni euh, bu dul woon wàllu tënk yu ma am. nii seen jëwriñ yi ànd ak yéen def bés bu ne noonu lay def. c'est te loolu it yaakaar naa firndeel na ko ci ci lu bari. Mhm. bi ñuy waajal quarante ans Hizbut yi ñeent fukki yi. Mhm. ceroog bi sañu aatu ñëwee di ko ko wax si daf ko ne daf ko ne xam leen ni day euh, euh, bu bu sama jëmm de bu fekkee laxasaayuwul itam ànd ak yéen xam ne ni xol bi moom laxasaayu na ànd ak yéen foofu la nag yaakaar naa ne loolu ah, tawféex la loo xam ne suñu boroom <laughs> ah, moo ko defal ci ci mbooloo bi moom it muy loo xam ne ba mu koy yëg di ko di ko di ko di di ko di ko di di ko xam ci sëñ Tuubaa mm-hmm. ña ca newoon sax mm-hmm. boo leen ci laajoon xamuñu ci dara dëgg la waaye nag tawfiix rek la yoo xam ne tawfiix la mm-hmm. joo xam ne suñu borom euh, moo ko defal ci sama ànd ak yéen ñun itam muy tawfiix joo xamante ni suñu borom defal nañu ko ci ci ci ci ànd ak moom. muy muy muy loo xam ne kon sant yàlla rek. jërëjëf jërëjëf euh, jërëjëf sëñ Lamine. kon foofu sax moo may may ma seen digganteeg Cheikh Mamadou Mountakha ak seen digganteeg xasida yi. day mel ne sëñ Mountakha. ba tey fu fas na yéene fu muy dem yóbbaale is bu tarxee dafa mel ne fasu leen yéene bàyyi ci genn wet loolu sabab na naalam bu réy bii nga xamante ne bi ñaanu sëñ Tuubaa woon gu yàgg waaye mbakkar feggu la wuñ ko defaloon moom te te te mu mel ne bi mu ko gisee rek gëmewu ko moom dafa mel ne ku koy jiir dafa nag këtam rek tàbbi ci biir muy université bu mag bi biñ ko naalee mu ne leen nag yéen ñi daan jàng xasida yi nag kaay leen wutal ko kër ma bëggoon naa ñu dugg tuuti ci këru xasida yooyu jërëjëf sëñ Fallou loolu itam day tàbbi rek ci tawfiix yu rëy yi nga xam ne suñu boroom euh, defal na ko isbu tarxiya ci diggam ak Cheikh mun Muntaxa ndax yàlla dogal na sax bu ñuy xool taarix bi saal bi yu ñu nekk nii fii la sëñ bi joxe woon sëñ Aatu ndigal li ci saal bi ci saal bi fekk mu woote woon ñenn ñoo xam ne ay doom lañ ci moom mhm. liggéey ci xaside yi sëñ Tuubaa liggéey yu am solo mu di leen di leen di leen di leen kañ di leen di leen jaajëfal di leen sant euh, sàkk woon nag sëñ Aatu teewaale ci jataay bi ndax féetale woon ko lu bari ci li nga xamante ni moo jëm ci teraanga yi dëgg la bi yàlla dogalee nag ñu ñëw ba teew ci jataay bi muy leeral xaside yi jublu gim ci am ndax euh, wane ne bibliothèque ba li nga xam ne moo ne ci daaree kaamil Euh, ca daaru minam hmm. dara xajatu fa hmm. bii ci daaree kaamil tam hmm. dara xajatu fa waaye mu fas yéene kër goo xam ne dañ ko jagleel xaside yi allahu akbar bi mu waxee loolu nag daal di ne loolu nag sama liggéeyu bopp la boo xam ne maa koy liggéey te sama waa ji laa koy àndal muy sañaar allahu akbar kon sëñ bi noonu la noonu la noonu la ndigal li ñëwee ci moom mu ne sama waa ji laa koy àndal muy sañaar loolu amee nag ci jataay ba ci saa si sañaaru xamal ko ne ko nun day mbàkke fas nañu yéene li tàmbalee ci ci téeméeri million mm-hmm. bu milliard mm-hmm. fas nañ ci yéene amuñu ju fu ñuy yemale suñu bopp dëgg la waaye daal xamal ne mm-hmm. bi ndigal li tàbbee ñun caabi lañ la amee laa bi ne ñoo koy ànd mu ne mu ne ko waaw waaye waaye caabi lañ la amee li na ci poos yi moom waaw boobu fekk na sëñ bi ne ko sax xëy na am na ñu ma ko doon liggéeyloo bi ñu ko xoolee euh, xayma ko yeggoon na ci ñeent fukki million ma ne leen nag ginnaaw ci wàllu economie rek lañuy ñu dinaa ci dolli ñaar fukki million muy juróom benn fukki million naalu sëñ moom waaw waaye waaye si Aatu moom bi ndigali tàbbee daf ko ne ci téeméeri million lay tàmbalee bu milliard romb juróom benn fukki <laughs> allahu akbar dëgg la <laughs> loolu moom xër la ndax moom koo xam mm-hmm. xam itteem ci sëñ Tuubaa mm-hmm. mën naa ne ba ndigal loolu tàbbee mm-hmm. amatul jàmm moom muy suba di guddi di bëccëg mm-hmm. booy liggéey ak moom da ngay dem sax ba yërëm ko ndax bu architecte yi ñëwee ma ngay réunion ak mm-hmm. bu ñu paree mu woo techniciens yi nga xam ne ci biir isbu tarix yi la tàmbalee mm-hmm. ku ci architecte wala ngay ingénieur génie civil walla ngay liggéey ci bâtiment wala ngay ingénieur ci fànn gu mën a doon woo na ay ndaje bi loolu jàllee mu jàll ci ñeneen bën ni nga xamante ni plan yi architecte yi lépp moo ko ànd ak moo ko ànd ak ñi ko doon liggéey. suba ak ngoon guddi ak bëccëg. ba lépp àgg mu indil ko sëñ bi. leeral ko ko Cheikh Mamadou Mountakha daal di jël musuwaar def ci ñaan. jàpp bis benn bis sàngam bu jotee nañ ko tàmbali. nga xam ne kon diggante euh, terrain ba la fa nekkoon. nga xam ne euh, am na fa bâtiment yu fa nekkoon yoo xamante ni dañ koo dindi. garab yu fa nekkoon yoo xamante ni dañ koo dindi maasale ko ba mu mel ni nga xamante ni ni lañ ko war a def loolu nag euh, Cheikh Mouhamadou Mountakha moo indi tontu li ndax yàlla dafa dogal bi muy seet si chantier yi liggéey yi nga xam ne moo am ci université yi mu ñëwal boppam ci kër xaside yi bi mu ñëwee nag wax kàddu yoo xamante ni day gën a dëgëral tawfeex jooju dëgg la ndax dafa ne liggéey bi de euh, bi ñu koy liggéey naalaale wuñ ko ci woon mm-hmm. muy këru xaside yi mm-hmm. maanaam liggéey nañu plan université ba mu àgg mm-hmm. waaye bokk ci woon waaye nag li te leen ci jotale mooy sëriñ tubaa ci boppam moo namm ngeen feeñ ci liggéey bi nee loolu rek mooy mooy mooy mooy li koy indi kon loolu nag di di taw mel ne day mel ne jumaay Tuubaa <laughs> naalaale wuñ ci woon sooroor bu mag bi waaw <laughs> waaye waaye munu cee ñàkk <laughs> munu cee ñàkk noonu la ko Cheikh Mouhamadou Mountakha waxee daal di ne kon nag loolu day firndeel ne mhm. sëriñ bi ci boppam mhm. moo namm ngeen feeñ ci liggéey bi mhm. waaw bëggoon nañ ci liggéey boobu comme sëñ Mountakha juróom benn fukki million la xalaatoon moom ñeen fukk sax la gaa yi defaroon mu teg ci ñaar fukki boppam fii ngi sëñ aatu na ko téeméeri million ba milliard mhm. fii ngeen toll ku ko doon xayma ndax romb leen juróomi téeméer wala juróom benn téeméer waaw romb romb nañ juróom benn téeméer nañ juróomi téeméer romb nañ juróom benn téeméer ci ay million ci ay million <laughs> eh, ndax juróom-ñaar juróom sax romb nañ ko ci lu mu wóor ah. xayma yi nga xam ne moo ci des kay diggante juróom-ñaar yeeg fii xëy na bu ñu ko xaymawaatee dina xam dina dina xam ñaata bu ngeen xaymawaatee yeneen juróom-ñaar waaw bu ñu xaymawaatee eh. dinaa xam juróom-ñaar yi ñu romb ñaata ñaataa ci teguwaat waaye romb ngeen juróom-ñaar moom. ci lu ci lu leer. waaw bëggoon na maa xam foofu itam capitalu capitalu Hizbut Tarqiyyah. Mm-hmm. ndax léeg-léeg sëñ Lamine danaa dajeeg moom. 1000 mm-hmm. francs jafe ko. Mm-hmm. te muy somme bi milliard. léeg-léeg ma dajeeg itam tam euh, xaw a doy waar mu wóor ma ne ñii moom <laughs> kër ga mënuñ seen bopp. capitalu Hizbut Tarqiyyah ba ba ba naali sëñ Tuubaa yi nga xam ne lu ci nekk ay seen i bëccëg day gàcceel ay ay ay 20 millions 30 millions seen i bëccëg. boobu fan la ne. loolu la ci sëñ Tuubaa suñu blaat dafa waxoon lu am solo bi mu wootee liggéey yokk jumaa ji mhm. euh, mois de maanaam ci safar la ko woote mhm. fukki fan ak juróom-ñeent ci safar mhm. fukki fan ak juróom-ñaar ca rajab mu ne yëg leen ne téeméeri junni million ak juróomi téeméeri million yi neen waxoon daje na fii may wax ak yéen dëgg la ma di leen xamal nag ne leen sëñ tubaa mhm. mësta santaane lu jëm ëllëg déedéet mhm. nen daan xëy fi barab ne nañ ma jàngal téeméeri kaamil ni mbooloo ma jàng ko ci saasi mhm. daan xëy ne nañ ma bindal kaamil bu sotti ñu bind ko mësta santaane lu jëm ëllëg at ma ca topp mu woote waat beneen liggéey boo xam ne mooy lu mel ni groupe électrogène bi kaaw yi ñu war a def ndox mi ci biir jumaa yi ngir buy wal mu bañ dem ci biti ak yeneen ak barabu sëñ bu mag bi ci boppam la ci dalee ba ci escalier fa iliman di jullee mhm. loolu di beneen milliard mhm. euh, waxtaan bi mu mujjee def mhm. ca kori ga mu ne liggéey bi de bi ma koy digle xam naa ne sax at mi melul ne at war a mel ndax man sama aréni daaw juróom benn fukki million la woon ak ñett mu def ko ci liggéey bi sama aréni ren di fukki million ak ñaar waaye terewul nag ma xam ne mhm. mbay mu nangu mhm. xol yi nangu ko gën a wóor mhm. te xol yi nangu nañu sëñ Tuubaa te doon ñu ko gànt allahu akbar laa ilaaha loolu nag nag mooy capitalu murit yëpp <laughs> mooy capitalu membre isub tarix yi boo gis rek looloo ne ci dënnam te sëñ Tuubaa moom ah, la sëñ Saali waxoon rek ñaan koo liggéeyal baax na. Hmm. waaye waaye ñaan mu liggéey loolu. moo liggéey loolu moo moo gën a am solo. bu la liggéey loolu da lay boole bagage yi jeex na. waaw ah. moom fi ne bagage nag. Ah. léeg moom mu gane ñoo gane gane gane noo xam ne dina dinañu duñu nattable ne. Hmm. maanaam maanaam maanaam maanaam moo ci moo ciy feeñ. Hmm. diñ ci woon ak nangoom. diñ ci woon ak xettaleem diñ ci woon ak tawféexam. jërëjëf Cheikh Mahamadou Lamine mm. am na solo lool mm. ci loolu waaye kon yow eh, membre yi ne ci biir réew mi ndax daa mel ne bu Tarqiyyah moom seen dund gépp ci jaayante la dëgg la waaw ah, ah, ndax ndax euh, maa ngi gis koor gi mm. yéen a ngi ci waaw université ba yéen a ngi ci mm-hmm. waaye yokk yàqul nag service yi nga xamante ne bi service siñ Muntaxa la ci gan ñu bette wala yu demee noonu waaw Sëñ Tuubaa xam nga dafa ni woon dafa ni woon walajtu xadiman fi mtidaahi Muhammadan gannaaw bu ne waraj xadiman fi mu di daay waseet yi suñu blaat ne nee na waraj nee na mooy engagé engagé mm-hmm. engagé nee na mooy dugg loo xamante ni doodoo ci génn mm-hmm. te sëñ Tuubaa dañuy dégg mun Mountakha di wax ne bi ñu ko gisee ba bi ñu ko noppee gis mm-hmm. boromam rek la nekka allahu akbar muy lu am solo moom itam nee na nee na lenn lenn lu ñu ko gis mu di ci yëngu loo xam ne du bëgg yonente bi sallallahu alayhi wasallam ak cofeel ci moom taxul amul nabiyunal Moustapha xayrul wara xaradi fii kulli shay'in wa ma abaahu yaa baahu aqsamtu indi nabi abadan xillun wa hibun abaahu yaa baahu kon nee na yonent bi moom mooy léppam mm-hmm. noonu nag la la la isbu tarxee fas yéene mm-hmm. def ko digganteem ak sëñ Tuubaa mm-hmm. ay yëngoom ay dalam ay xëyam ay gontam lépp tàmbalee ci sëñ Tuubaa yem ci macha loolu nag euh, fànn yi day bari liggéey day bari ndax fi ñu toll nii li ma la wax sànq ci koor gi rek ñii ñëw fii ña des fële di waajal li jëm fii toll nañ ne ñoom waaw dëgg la am na ñoo xam ne koor gi dana dem ba jàll seen tànk du jëm fii te lañuy def ci liggéey bi bokk na ci nga xam ne mënta ñàkk te fii la jëm si loolu lépp nag bu ñu bu ñu booloo suñu xol ak suñu itte ah, euh, di ñaan suñu boroom ci bi sëñ tuwaa mi nga xam ne lu ko waay yéene sumbal ko ko bu wéree mu jox la kàttan jox la ndimbal jàppale la ba loolu sotti ñuy ñuy dagaan rek saa su ne macha waaw te te te te fas yéene xam ne euh, àqam moom kenn mënu koo matale dëgg la da ciy ne rek ba xam ne fii la sa kàttan yam fii la sa doole yam mm. waaye moom fay ko kenn kenn kenn kenn mënu ko. macha allah macha allah day mel ne sëñ Fallou may xamal ne waxtu wi jege na. Mm-hmm. waaye sëñ sëñ Lamine. Mm-hmm. bala ngay daaneel rek bëgg naa ñu dellusiwaat ci sëñ Tuubaa tuuti. Mm-hmm. Hizbut lan nga ma ci mën a jàngatale. ci li nga xam ne dund nga ko ci. mu gën laa waar ci mbirum sëñ Tuubaa. Euh, mooy mooy mooy naa ci ne de euh, sëñ Tuubaa. li mu ne sama tey june day gàcceel sama démb mm-hmm. gise naa ko ci allahu akbar ndax tey làmp yi ñu tiim mu taal ñu ñu mm-hmm. taal mu tiim ñu mm-hmm. eh, toll na toll na toll na ay jamono mm. eh, soo ko bëggoon taal <laughs> ay kees du jeex nga fi indi <laughs> te du leeree nii dëgg la de <laughs> toll na ay jamono yi eh, ku ne la woon di nga dem ba am tele boo xamante ni tey yaa ko moomal sa bopp mhm. di télé boo xamante ni tey euh, xalifa sëñ Tuubaa bu xëyoon suba mhm. ne dama koy maye kenn du ko laaj lu tax ndax seexu ko kenn seexu ko kenn amul kenn ku ne sama action mhm. wala sama nangam mi ngi ci sëñ Tuubaa ci la tàmbalee rek yem ci loolu yaakaar na ak jëm kanam ak rajo xaside yi soog a ñëw ak wàllu liggéey bi ak tey jii euh, tudd nga léegi ron mango gi tey jii néeg ba woon ci ridis boo ko xooloon tey xool benn néeg bi gën a ndaw ci daare ji waxuma la ak liy jëmmi daare ji ak li isbu tarix yi fépp gis ne kon. te ba néeg boobu li bu tarix yi amoon lépp. nga ci biir moom xaj na ci. <laughs> su nga gisee ne kon sëñ Tuubaa moom. Mhm. ah li mu ne sama sama sama sama tey june. Mhm. day gàcceel sama démb yaakaar naa ni feeñ na ci fànn macha allah yaakaar naa sunu bii tey boo ko xoolee. Mhm. xool ko rajo yoo xamante ne batterie nga ko daan taalee xool ko yeneen yu bari mm. di gis ne sëñ Tuubaa daal mm. euh, Hizbut Tarqiyyah daal ni ma la ko mën a waxee daal xam naa ni moom dafa dugg rek ci ci jëm kanamu sëñ Tuubaa moom fu buy dem yóbbaale ko <laughs> alhamdulilah rabbil jërëjëf euh, dafa dugg ci jëm kanamu sëñ Tuubaa buy dem yóbbaale ko mm. euh, kon yan kàddu ngay tàggatoo ak bokk yi rawatina nag membre dama koy faral di wax toujours mm-hmm. euh, rawatina keroog bi nga xam ne euh, général bu mag boobu tëdd na mm-hmm. euh, di sëriñ atu mm-hmm. dama wax ne ñibbig sëriñ Atou gi di fekki sëriñ Touba yàlla nay retrouvailles yu mboolee membre Hizbut Tarqiyyah yi ndax lii seen ala la lii seen ala la sëñ alali sëñ Tuubaa la jum tegoon ci seen i loxo kon yaakaar naa ne euh, fii ñu toll tembe jaar agsi na nag ci jamono joo xam ne jaadu na ñëpp defandoo ci seen loxo mhm. bi ci loxo sëñ Tuubaa bi nekkee ca mosu cee jóg mhm. waaye rawatina nag Cheikh Mahamadul Muntaxaa mi nga xam ne rafetal ak boole mhm. ba agsi ci yónneen boobu mu leen yónni bi jafe-jafe amee ci réew mi mhm. mu wane ne solution moom waxtu wu ne ci sëñ Tuubaa lay war a génnee mhm. loolu sax bëgg naa ñëw ci tuuti mhm. mu yónni leen yëkkati li mu xaalis jox leen ko ngeen di ko séddale ba dugg ci kër yoo xam ne bu du toon digalul sëñ Tuubaa du ngeen fa dugg ndax ñoom mën am sax xetuk sëñ Tuubaa mosu leen a dëgg la sëñ Fallou loolu rek boo xoolee dafa tàbbi rek ci waar yi ndax Hizbut Tarqiyyah moom jumtuwaayu sëñ Tuubaa la dëgg la euh, di ñoo xam ne ginnaaw sëñ Tuubaa rek la ñuy xëyal sañ na leen sañ sañ na leen a yabal ci tool bu ne dëgg la tool bii nag bokk ci euh, bi loolu amee it euh, ginnaaw boo xamante ni yabal na ay kilifa ci aw turam ñu wax ba jàmm dellu si euh, ma gisee ci ne bari na bar bi ñu dem yoo xam ne da nga fay fekk ñoo xam ne day naan man de la ma jàppoon bi Sëñ Muntaxa waxee rek moo tax mu mën ko bàyyi loolu nag loolu nag rëy na lool <laughs> ñaareel bi ci des tam mooy Sëñ Yuusu keroog bi ndigal li tàbbee ginnaaw boo xamante ni suñu bés poroxaan ak ñi mu àndaloon dem nañu euh, waxtaan ak ña nga xam ne ñoo séqu mbir yi suñu boroom itam def ak nangu am ci bu am solo li gënoon jafe ci liggéey ba ñu def ko euh, ñun ñuy ay dongo yoo xam ne ni ko suñu yuusi di waxee ab yóbbante rek lañ doon yóbbu <laughs> waaye waaye moom it nag mu diisal ko gann mm-hmm. wane ni ndigal lii de mm-hmm. ndax am nañu daara Ziguinchor mm-hmm. am nañu daaru Kolda te dem nañu ba jaww bi. dem nañu ba dem nañu ba jànki. Mhm. vingt cinq kilomètres Bignona dem nañ ba ba barab yooyu yëpp fu ci ne amoon na jëwriñ joo xam ne mënoon na koo yabal mu dem fa waaye dafa ne moom nii mu toll sëñ bi du ma yabal kenn maay demal sama bopp. nga xamante ne du Ziguinchor. Mhm. du naa mhm. du du Diaobé. du du du jànki du dëkk bu ñuy wax euh, ca ca ca digganteem ak euh, Kolda toll ci ay. Euh, trente kilomètres Kabindu. Mm-hmm. fii ma lay wax fépp. Mm-hmm. moo fa demal boppam. ginnaaw nag bu bu bu wëree Ndakaaru du Médina du Faas du Colobane du Thiaroye du du du du du du du bu ba Kër Massar. Mm-hmm. ba fi nga xamante ni mooy Malika. foofu fépp yëmbal. moo fa demal boppam. muy nag lu am solo loo xamante ni gis nañ ni bi. Euh, nit ñi nangul nañ ko. wallaahi li mu doon. nangul dégg nañu itam. kàddoom mm-hmm. ba bu waxee mm-hmm. ñu jàpp mm-hmm. ba bu waxee ñu bàyyi ndax am na ci ñoo xamante ni sax eh, du ñu ay jullit waaye suñ bu muy séddalee ginnaaw loru nañ ci rek moom jëmmi doomu aadama yi rek la xool ñu seere tam ci sëñ bi seere yu rafet dem nañ ci barab yoo xam ne bañ fa demee ñañ fa fekk dégguñu wolof la ñuy wax dañ koy wax ci seenu làkk ci joolaa lañ koy wax wala ñu wax ko ci soose wala ñu wax ko ci ci ci pël hmm. keneen firi ko ci wolof ñu koy soog a mën a dégg ñu gis ne kon loolu firnde ne kon nit ñi hmm. cofeel gi ñu am ci moom hmm. am na ñoo xamante ne ci seen lalu hôpital lañ leen fekk ak seen i ambulance ne lañ ci sëñ Muntaxa la jóge am ci ñoo xamante ne nee nañ ñoom de tëraay bi ñu tëral moo tëdd moo leen jaaxal waaye bu ñu jógee seen itti ji jëkk mooy ñëw Tuubaa sant si sëñ bi ngir gis ne yëg na leen ndax fa ñu ne sori na loolu jàppuñu woon ne Euh, xelam ak yitteem dem na ci ñoom nii ba mu jaral ñu yabal ay nit ñu jógee fu sori ñëw loolu nag ku ci sëñ Tuubaa dimbali nga ci yëngu moom moom sant sant yàlla macha allah jërëjëf <laughs> jërëjëf kon kàddu yu tàggatoo rek waaw xanaa kàddu yu tàggatoo yi rek mm-hmm. euh, di leen sant bu baax ci kàddu sëñ Yuusu mm-hmm. mi nga xamante ni moom lañu moom moom la ñu teewal ci jataay bi mm-hmm. te euh, ma dégg muy wax kàddu gu am solo goo xam ne sëñ aatoo ko doon wax dara wax ne isbu tarxiya bunt bu dugg la am amul bu génn. allahu <laughs> ndax tey da ngay gis ñoo xam ne ña nga fu sori ci àddina. <laughs> taal fa taal boo xam ne. <laughs> boo leen laajee ñu ne la lii kat ci isbu tarixee laa ko nàmbee bu doon liggéeyal sëñ Tuubaa bu doon njàngum xasida la. bu doon ak murite la mhm. bu doon melokaanu taalibe la mhm. kon ñooñu mhm. euh, turu ñu mën a yorit daanaka rek ñu ngi ci isbu tarixee génnuñu génnuñu <laughs> waaw ndax ndax sëñ bi moom euh, la sëñ Abdoulaye waxoon rek yaa rabbi jaxali muridiina maha fii histika la xasina wa samlaj maha nee na benn génn buum gi leen likke tax na su ngeen bëggoon tàggoo sax du ngeen ko mën dëgg la kon bu daayira tuddee Kanzul Muhtadin wala mu tudd mu nawiru sudur wala mu tudd hadayixul fadaayir wala mu tudd masaalikul jinaan moo ko isbu tarixee ñoo bokk wenn tur. ndax mhm. bu ñu leen wooyee. Mhm. fenn fenn la ñuy soo mu sëñ Tuubaa dëgg la jërëjëf jërëjëf euh, Cheikh Mahamadou Lamine euh, jërëjëf itam euh, Serigne Youssou Diop ak mbooleem membre Hizbut Tarqiyyah yëpp ñu ngi leen di sant bu baax a baax di leen gërëm jërëjëf bokki spectateur yi nga xam ne ñoo jàkkaarloog ñoo dañu seetaan li moo nekkoon seen émission Ëttu bi nga xam ne tey jii ñu ngi ko amale fii ci kër Serigne Touba Khadim Rasoul gi nekk ci jumaa ji dalal ci Serigne Lamine Diouf ñu doon waxtaane lenn ci liggéeyub daayira Hizbut Tarqiyyah fi nga xam ne fi la ñuy wéttalee Serigne Touba Cheikh Mahamadou Mountakha ci weeru koor wi ci njàngum xasida ak bernde ci weeru koor wi ñu ngi ñaan suñu borom subhanahu wa taala mu nangu sunub liggéey te nangul luñ seenub liggéey yàggal fi Serigne Touba Cheikh Mahamadoul Mountakha Mbacké mu dund lu yàgg lool te lépp ànd wér lépp lu yàlla di wane ci kéemaan dunduk doomu aadama yàlla na ko wane ci dunduk Cheikh Mahamadoul Mountakha ñoo ngi sant ñëpp di leen gërëm di leen balu ak wasalaamualeykum wa rahmatullahi taala wa لائفن الأدار يا الله سفي بقاء به لي فيك يا الله بسم الإله يكفين الأدار يا الله سفي البقاء به لي فيك يا الله بسم الإله يكفين ak daara yàllaam safiik baqaa abihim li fiika yàllaam yaa man lahul amru yaa man laa